dal leen a jàmm mbokk internet Yatal Vision ñu dikk koy yéen ca la gën a fees ñu daal di koy njëkkee ak ki nga xamante ne bii nag moo di Dof Ndeye moom Dof Ndeye nag foofee ca Kaolack fa lay war a jàkkaarloog juge bi nag ginnaaw ak jamat goo xamante ne bii jëm na ci ak gone koo xamante ne bii nag dafa jàpp dafa doon yàq ab otoom nag ba tax nag mu daal di daal ci kawam si mbaaru ci kawam ba daal di koy jamatee ba nu ko jàppee nag foofee ca Sine Saloum fa lañ ko daal di war a lijjantee ay mbiram nag ca Kaolack moom mii di Dof Ndeye ni tey jële la war a jàkkaarloog procureur foofee ngir nag ñu daal di xam fan la ay mbiram di mujjee Fadel Barro bu Y'en a marre nag ca wet ga daal di sippi nag mbir ma lépp kii di Bassirou Diomaye fay ak Ousmane Sonko seen ab gouvernement jàpp ne nag gouvernement bi spectacle la nag moom mile di Fadel Barro ma ngay daal di xam ne leen fi wane lépp nag daanaka nag dikku céengu demul mbaylaar na ngay xam ne nag ne lii ñuy wax nii yëpp ay falafala rek la li ñuy def yëpp ay falaa falaa képp la moom Fadel Barro nag loolu yàlla daal di xam le ma nga xam ne nag ni kii di Bassirou Diomaye Faye ñi ko jegee nan ko daal di yedd te xamal ko nag mu daal di maanaam mu daal di toog te bàyyi tukki yu bëri yi ndaxte kat dafa mel ni moom tëlul sax waa réew mi waaye la mu gën a tal nag moo di ay tukki yu bëri di comti comti loolee rek la daal di xam le moom Fadel Barro ma nga xam ne nag ni kii di El la mu def nag du ngóor ndaxte kat événement bu mel ni tabaski nag nga bàyyi ba ne suba la nga daal di gàddu say biis daal di jëmali foofee ca boo marisee nee na loolee it du jàppul ne moom ndam la moom baru Barro la daal di xam ne nee na daal ci gàttal li nga xamante ni bii moom la gouvernement bu bees bi la di def daal moo di daal nax nit ñi ci kaw nag li nga xamante ne mooy lañ leen koy wan